jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, yéen sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk auditrices yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, réew mi FM mbokk ñu dellu am mbégte dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi. mbokki tey ñu invité Alioune Sané mu nekk coordonnateur de la fédération démocratique. des écologistes de Dakar moom la ñu invité tey euh, euh, Alioune Sané ñu gën laa xam tamit ci To Sané maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jili maa ngi lay fay. nga nuyu mbokk yi Medina. waaw maa ngi nuyu waa Medina yëpp di nuyu ñëpp. vraiment di rafetlu invitation bi. profité ci occasion bi tamit féliciter nos lions. le gouvernement du Sénégal pour cette magnifique victoire te je pense que tey. adduna bi yëpp ñu ngi koy feete gis nga jour yi fu ñu ñibbi rek ñu taxaw génn drapeau Sénégal je pense que loolu sant yàlla la. Mm. mais euh, euh, comme ni nga ko waxee sànq Coupe d'Afrique Sénégal yàgg daw ci ginnaawam ñu indi ko ñu indi ko ren euh, après Coupe d'Afrique bi bi ko Sénégal gagné ban mbégte nga si amoon ak nan nga gisee Sénégalais yi. waaw dafa nekk loo xam ne dafay am lu muy def toujours si réew. maanaam yokkute la si réew ku xamuloon réew bi nga gën xam réew mi boole si dina booster dina jox nit ñi tuuti jom ak si lu ñu lépp lu ñuy def. parce que tamit ay joueurs bu ñu leen yàggee ngemb fañ leen di fa nekk ci équipe yu mag yi ñu leen di fay ay millions ay milliards wax dëgg yàlla ñoo ñu lañ leen yaakaaree war nañ ko mun a boole seen doole def ko fii Sénégal indi ñu ndam. te je pense que bi yoon def nañ ko sous la direction de Aliou Cissé. malgré tout nag toutes les pressions qu'il y a parce que tamit àdduna lool la. ak dëgg la nag ku demoon demi-finale ku demoon finale ñëwaat dem finale war nga dal xel. te je pense que ku gis nañu joué Égypte keroog. dominer presque les xam nga tout le temps ba pare fekk si leen seen mënin muy série pénalty yi gagné leen loolu war na ne on a une équipe de, de jeunes techniciens c'est-à-dire une équipe capable de remporter toutes les coupes et aujourd'hui sur tous les plans ça fait marcher le pays dina ko defar si côté promotion touristique dina ko def si coté économie parce que gis nga coupe d'Afrique bi Sénégalais yu bëri liggéey nañ si am na yeneen yoo xam ne sax yeneen retombées gën a yooyu loo xam ne bon façon football moo bëri doole comme ni ñu koy waxee football moo mel noonu donc fi muy yóbbu réew sori na. mais gis nañ tamit euh, classe politique bi ñëpp euh, ñoo ngi woon ci ci ci cérémonie bi ñoo ngi woon ci euh, ci accueil bi aussi loolu tamit yow en tant que homme politique nan nga ko jàngatee. oui loolu dañ koy d' loolu seen wane ne rek ne d' accord nañu ne le gouvernement du Sénégal a bien travaillé parce que la politique du sport c' est du gouvernement du Sénégal c' est leur responsabilité suñ ko pertoon tamit dañ naan Sénégal perte na on désignera le droit le donc lii baax na si réew tamit opposition boo xam ne bu liggéey amee bu baaxee nga ne baax na bu baaxul nga ne baaxul te lii ko foog naa ne amul ku si sañul woon sax ñëw parce que tamit ah, réew mi yëpp bëgg te foog naa ne ku bëgg ku mën a bëggal réew yëpp yëpp yëpp yëpp war nga mën a sant yàlla je pense que tey opposition bi wane nañu ne réew mi ñoo ko bokk te lu fi baax tamit dañuy ànd jàpp suñu ñëpp lii nag dañ koy féliciter le gouvernement du Sénégal parce que nag wax dëgg yàlla politique du sport ci ñoom la dépendre te comme ni ko waa fédération waxee Augustin maa ngi koy saluer en passant c'est mon grand la ñoom ñëpp ni ñu ko waxee mooy gouvernement bi def nañ li ñu war a def taxaw nañ si ba benn problème amuñu ko ba nga xam ne mun nañ dem football ba am ko te loolu tamit ñu rafetlu ko bu baax a baax. Euh, jërëjëf euh, Alioune Sané ñu gën koo xam ci To Sané yow yaay euh, coordonnateur kuréel bi nga xam ne moo ëmb écologiste yu yu yu Sénégal di fédération démocratique des écologistes. Euh, du Sénégal yow yaay coordonnateur bi euh, ci fi nga xam ne mooy Dakar mais dinañu ñëw ci parti boobu euh, te Ali Aïdar jiite ko dinañ ci ñëw ci ci élection locale yi yi ñu génn ci seen taxawaay ci biir benn bokk yaakaar waaye fi ñu bëgg a njëkkee rek mooy commune bu Médina yow nga bokkoon si ñi nga xam ne tey. Euh, yéen a nekkoon doon def euh, liggéey bu am solo ngir ngeen xool euh, consensus am ba ngeen tànn seen seen candidat yéen benn bokk yaakaar ngeen tànnoon ki nga xam ne tey moom mooy Cheikh Tidiane Ba ndax tànnin bi nekkoon na lu yomb. non ça n'a pas été facile du tout mos naa la ko wax fii ma ne la bon am na ñu naan bokkul Benno Bokk Yaakaar ñi naan bokkul APR Cheikh du politique mais ku ne xam na ne Cheikh c'est un directeur général il travaille pour l'État c'est un fonctionnaire aussi. mais bokkul mais même bu bokkul APR xam nañ ne mi ngi jàppale président Macky Sall te wane na ko élection yi fi jaar donc bon li amoon solo mooy hmm, ñu trouver candidat parce que xam ne yaakaar nañ ne mun nañ gagner te wax dëgg yàlla liggéey nañu ba mu sës man maa ko yoroon comme ni nga waxoon. pro euh, hmm. maa yoroon c'est bon je l'assume je l'ai bien fait d'ailleurs jusqu'à permettre au président de la République mu mun a teg loxo ci Cheikh Ba choisir ko mais dem nañ ba cappaandaw ga. ba nga xam ne bon peut-être benn couac bu ndaw moo amoon mooy li Seydou génn à côté mais taxul loolu ñu rappeler ko à la raison dellu si affaire yi teg ko si yoon parce que yoon moo fi nekk dañ ko teg consulter génn quatre candidats waxoon naa la fii du deux quatre la la ñu mujj gis nga man maa géré woon loolu yëpp ba ñu génn quatre ànd ak bennoo dans l'unanimité amul kenn ku compte ñu auditionné leen ñoom ñëpp ba mu des nag nga xam ne tànn moo des waaw ba ñu waree tànn nag président pour yombaluñu ko parce que nag moom mooy seen kilifa ñoom. si parti ba ñu nekk ak si si réew mi ak responsabilité yi mu leen dénk te je pense que président am na moyen boo xam ne mun na wax ak ñoom am na moyen boo xam ne mun na ko utiliser ba nga xam ne lu mu bëgg dinañ ko ko defal si la tànnee Cheikh te foog naa président bu demee bay tànn tànnal loo xam ne tamit waa Médina ñu ngi ko doon xaar benn Benno ko Yaakaar gisoon nañu loolu ñun ñun ñu ngi doon travail normal président tamit ak information yi mu am day def lu méngóox li ñëpp xam ne moo mën nekk mais bu doon choix bu baax mu gagné commune bi. non choix bu baax la Cheikh n'a pas démérité comme l'a dit le maire hier Cheikh Ibrahima on a travaillé ensemble on a bien travaillé à la Médina la preuve yeewu askan bi partout ils ont fait razzia sauf à la Médina yeewu askan bi Médina ñun ñun Benno Bokk Yaakaar rawee nañ mille presque 3300 et quelques voix. donc euh, loolu moo lay wan ne affaire bi du loolu bon yaa a eu maintenant des. mais Yewwi Askan Wi est-ce que du ñoom ñoo amutoon candidat. Mm, non ak candidat bu mag ci biir. non Yewwi Askan bi du woon question candidat Yewwi Askan bi dañuy gëm ma voté gars yi dañu doon gëm ma voté vote sanction la ñu doon def rek contre benn Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan bi gars yi xooluñu fenn kan mooy candidat bi ban profil la ndax xam nañ ko ndax yàgg na liggéeyal askan bi seen yoon nekku si. ñoom daal nañu voté rek ba benn boo ko yaakaar contre. waaw mais est-ce que tamit gisuñ ne euh, yeewu askan nekk Medina est-ce que gisuñ ne Bamba moo nekk euh, position bu baax te ci opposition bi la euh, ñoom ñu préféré voté Bamba. c'est possible tout ça c'est possible mais xam naa ne man daal ñun li ñu mën a jàpp mooy li ñu liggéey Medina tey yow mi journaliste observateur yi Bamba Fall si boppam yéen a gënoon xam ne ku ñu yeewoon guddi sax ne la Bamba dina gagné doo ko gëm parce que ni ñu liggéeyee ñëpp gis ngeen ko. amul kër gu ñu dugul amul mag bu ñuy waxul en tout cas la Médina a voté largement pour nous te je pense que écart boobu wane na ko parce que bu ñuy wax ay 900 voix et cetera et cetera ba wax balotage am na lu tax. loolu avec avec tous vos moyens vos milliards. non non non non on n'a pas dépensé de milliards ku wax loolu da ngay waxul dëgg tey Cheikh génnewul ay milliards génnewul ay millions ku ko wax waxul dëgg man xam naa si dara. man mii di wax ak yow jël naa xaalis au nom de mon parti au nom de notre coalition su jàppale Cheikh Ba. mais mais ñi ànd ak Bamba Fall ah. loolu la ñu wax da ngeen fa génne ay milliards. déedéet c'est faux c'est faux. c'est archi faux wax ni dégg nga addi waa. Euh, mais de xam nga yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko wax loolu bon dégg nañ ko mais Cheikh c'est un fonctionnaire c'est un technicien il n'est pas fou Cheikh doful dof boo xam ne dina jël ay milliards fu mu koy jëlee sax beneen bi mooy gis nga ñun nous sommes des hommes de relation si dëkk bi lañ dëkk. possibilité yooyu ma am man dem jël xaalis jënd ko ay pot de fleur may Bamba possibilité yooyu laa am jël xaalis jàppale Cheikh Ba te def naa ko am ñeneen am naa suma benn xarit boo xam ne écolo la musa doon il a toujours voté écolo jën na 10 millions jàppale Cheikh barke yonantu Mouhamed Cheikh ne ma gërëmal ma ko te gërëm naa ko def ko vidéo gërëm ko donc pour wax ne ne loolu wax bu yàqu la wax ji du loolu. mais mais mais moyens yi ngeen yoroon yéen benn yaakaar ci Medina Bamba yorutoon moyens yooyu. xam nga ñun yan moyen la ñu yor ñun yan moyen la ñu yor ñun on a fait la proximité dans chaque carte ñuy dem yendu fa suñ fa yendoo añ après dem dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi génn dem yan moyen yeneen la ñu yor c'est vrai que nag booy dem politique da ngay booy dem et puis ñun euh, Médina bi ñu buggoon Médina bu bees bi ñu buggoon day nekk Médina boo xam ne day méngoo jamono wane nañ ko suñu support wane nañ ko suñu programme wane ne vraiment war nañ mun a am ay calendrier war nañ mun a am site internet war nañ mun a am ay journaux et cetera des supports yoo xam ne nit ñi dinañ xam ne ñun fii lañ leen bëgg a jëmee mais loolu naturellement avec notre notre argent travaillé nañ si maanaam Cheikh a le soutien même du président de la République c'est normal donc pour wax le na ñun dañu def li ñu war a def ku wax nag defe ne xam nga moyens yi fan la nekk moyens yi kay saawaay ku yor maire yi mun a embaucher 500 personnes mën a joxe mandat mën a joxe secours mën a joxe xar mën a faj yi malaat wax dëgg yàlla foog naa ne bu ñuy seet moyens ëpp lu ñu la ko. mais mais mais est-ce que buñ ji bu ngeen jiitaloon Seydou euh, Seydou Gueye euh, du ngeen ji du ngeen gagné. non sérieusement je le dis en toute honnêteté non. et ça tu peux demander à Seydou même il l'a dit moom nee na mënul gagné Bamba Seul te du ko gagné sax. non non mais bu doon Seydou dem na ni ngeen accompagner Cheikh Ba ngeen accompagner woon ko Seydou Gueye est ce que mënul gagné Bamba Fall. waaw c'est que dañuy bokkul profil ñoo bokkul. bokkuñu bon Cheikh moom vraiment euh, bon suma grand la ah monsieur le ministre je le respecte beaucoup c'est un homme intelligent qui fait un excellent travail auprès du président gis nga ko jox post bu stratégique mais sur le plan politique l'image Seydou ne passe pas. lu tax je sais pas. Je ne sais Peut-être, euh, peut-être Cheikh est beaucoup plus, euh, je sais pas, charismatique, ouvert, charismatique. charismatique. et beaucoup plus ouvert. Et puis on dit que aussi il est, il est beaucoup plus généreux. Parce que tamit politique dafa ànd ak générosité. ça c'est important man mii yoruma mu poste du ma directeur du ma dara mais foo dem ñu gërëm ma. maa ngi siy sant yàlla nit politique dafa ànd ak générosité tamit te Cheikh dafa ñëw wane ne man joxe naa suma bopp lu ma am yëpp suma alal yëpp nee na sax Medina moo ko gënal CDC. donc kooku am na pare na taxaw na dans les disposition ba pare yàggal na jàppale nit ñi man ba may xam Cheikh yàggul ba ma koy xam yàggul mais xam naa yi mu daan def mag ngi dégg Seydou tamit lu mu def dégg naa mais dafa des c'est-à-dire xam nga yàlla mooy def loolu. mais ñaari profil yi daal bokkuñu. yow yow xam nga ko sax barke yonantu Mouhamed yow mi ñuy déglu ñoom ñëpp Seydou ñoom ñëpp xam nañ lu may wax c'est pas j'ai rien contre Seydou mais c'est l'image de Cheikh qui qui a mieux passé d'ailleurs ah la preuve xoolal tey lu Benno am Médina musuñu ko fa am ça c'est vrai absolument li ñu am Médina nii musuñu ko fa am. kon bu démb doon tey euh, ngeen tabaat Cheikh Ba. non démb démb Seydou la woon te ànduñu woon maa moom bien vrai que Benno lañu bokkoon man dama demal suma liste. bopp dama ne euh, Cheikh Ba ngeen choisir woon. Hmm. ci commune Médina mu hmm. nekk seen candidat. Hmm. est-ce que amul lu ngeen ci regretter. bu démb doon tey. non non non on regrette rien absolument rien du tout. en tout cas moi je lui ai dit et je l'ai dit à tout le monde je on n'a pas jëlu ñu ndaare te jaaxal nañu Bamba Fall ak nitam bu baax a baax a baax foog naa ne ñoom bi musuñu gis lu mel nii si si Médina. Ah, lu ñu gisee nii. mais mais Bamba chaque jour dañ koy sot déedéet sotuñu ko bi yoon moom sot amu si yoon moom wëpp bi yoon moom gisoo fa sot ana ñen ñoo ko sot fii fii da nga fi gis ay ministre ay député di yuuxu non non a nekk Médina Cheikh Ba CDC ñu dénk ko moo jiite CDC rek loolu influence bu mag a mag lay def xaaral wax la dama ne dama ne dama ne Seydou Gueye doog a ñëw dama ne dafa bokk si département Seydou ministre pour pourtant te boo xoolee sax vraiment il nous a soutenu dans la campagne mais gis nañu ne il a battu campagne aussi parce qu'il était sur la liste de la ville il s'accompagnait avec Diouf Sarr battu na campagne tamit parallèlement moom boppam biir Médina ok c'est vrai que man j'aurais souhaité qu'on batte campagne ensemble. pourquoi parallèlement. avec je sais euh, pas je sais pas peut-être c'est leur option mais moi pas apprécié ça moi en toute objectivité politique la logique voulait que soit partout avec Sherba. Il l'a fait de certains temps. Mais chaque jour, on devait, battre campagne ensemble, comme il l'a fait avec Diouf Je pense que le faire à la Médina, c'était plus opportun que d'aller le faire dans tout le Dakar. que Médina lañ ko gën a xamee Médina la nekk war na mun a gagner Médina oui dafa parce que moom waxoon na ko seul il peut pas gagner donc ensemble nous pouvons relever le défi oui j'en suis convaincu mais il fallait le faire ensemble yëkkatindoo wat gaal yëgoo parce que ñun loolu la ñu xam politique amul ñaari façon te kenn mënuñu ëpp xam-xam si loolu. mais est-ce que du Seydou Gueye dafa àndutoon ci candidature bu Cheikh Ba. am na ñuy wax loolu bon am na ñuy wax loolu gis nañ ay nitam maire mais après a dernier moment ñoom ñëpp ñëwaat nañu bon parole ñun li ñu mën a jàpp mooy li ñuy wax rek la ñu mën a jàpp mais xam nga du ñàkk am na ñoo xam ne nag musuñu duñu si d'accord ba abadan et peut-être ils voteront même Bamba Fall ou contre nous ça du si ñàkk mais on prend acte En politique, tout est possible. Je te dirai jamais c'est pas possible. Tout est possible. Mais nag l'homme est défini dans les faits, dans la pratique. li ñuy wan la ñuy xool la gis. ah oui amul leneen. mais foofu amul jaay ñu xam-xam amul ëpp xam-xam amul leneen li ñuy wan la ñuy gis. mais est-ce que euh, woowoon ngeen Seydou Gueye pour mu ñëw toog ngeen waxtaan moom ci programme. naturellement naturellement et c'est les hommes de Seydou même qui dirigeaient presque le comité électoral. et la femme tête de liste moo doon tête de liste proportionnelle je pense que Grand Kane. kon yow daal euh, su ma la déggee mooy Seydou taxawaay bi mu waroon a am ci wetu Cheikh Ba ci élection locale yi amu ko ci commune bu Médina. oui non au fait lu loo xam ne la nit ñi dañ koo la dañ koo laam-laamee ba pare dañ ko doon laaj. ana Seydou bu ñu gisee Seydou di dem aussi sans Cheikh Ba di campagne si biir Médina way dinañ laaj lii lan moo tax mais ñun nit la ñu dañuy laaj kay kenn moomuñu sax dañ koy laaj c'est pas comme ça ñun xamuñu politique boobu wat gaal yëgoo politique àndal liggéeyandoo la yëkkatindoo dóorandoo la ñun loolu lañ xam. peut-être nag moom boobu moom stratégie bu bees la mais politique moom dafa am benn la. mais est-ce que est-ce que defutoon euh, euh, euh, campagne pour uniquement le le le le candidat de Benno au niveau département au niveau de la ville de Dakar Diouf Sarr. en tout cas taxaw na si bu baax. candidat Diouf Sarr waaw taxaw na si bu baax. est-ce que ni mu taxawee si Diouf Sarr nu la taxawee parce que je le voyais plus avec Diouf Sarr que Cheikh en toute honnêteté. Mhm. la preuve quand on faisait notre meeting de clôture c'est ça Seydou waa ma le conseiller le minimum c'est que mu waroon ñëw teew loolu day rafet day day dalal xel. ñëw teewut déedéet loolu tamit il faut le demander pourquoi. ah seen meeting clôture bi euh, bi Cheikh Ba doon def Medina Seydou Gueye ñëwutoon. oui ñëwul man je ma pose la question te bëggoon naa lu mel noonu ku mel ni Seydou wax si parce que tamit ku mel ni man damay xalaat dañuy xalaat lan moo tax. te invité woon ngeen ko. mais Saloum ñu koy invité c'est le responsable de l'APR membre de Benno Bokk Yakaar ka bu ñu bu ñu voté Medina day dem ville. affaire am day gën a baax même candidat ville la candidat président de la république am président tànn candidat la coalition pa par exemple bi ko def ministre kooku kay warul xaar sax ñu koy woo gis naa fa sax des conseil du président de la république donc moom pourquoi pas moom te loolu dafa doon rafetal jëmm bi comme ni ma def jël ñetti car rapide ak waa cër indi ak ñeneen ñeneen ñu def nii ñu ñi ku nekk ñëw boo ñëwee ñu annoncé eh ñii ñëw nañu ñu annoncé leen noonu lañ koy war a doxalee. mais mais euh, est-ce que amul ñu jàpp ne Seydou dafa bokk si ñu def vote sanction. oui am na ñu koy wax oui am na koy wax en toute honnêteté moom xam na ko sax am na koy wax gars wax nañ ko si rajo yi wax nañ ko fépp parce que quand même dañu am ay audio yoo xam ne ay jigéenam wala ay nitam dafa am lu ñu si wax ba pare. loolu bien avant nit ñu yor audio yi donc audio yooyu ça existe. peut-être ah, ah. am na am na ñu naan dañu meroon. mais am na sax des gens de l'APR qui ont qui sont sur la liste de Bamba Fall. ah bon mais oui confirmé je ne citerai pas de nom mais je les connais ils ont été investis sur la liste de Bamba. te APR lañ bokk. APR lañ bokk Mor Seydou ñoo doon liggéey. ñooñu ñooñu dem si Bamba. dama ne la y a une femme qui a été investie si je me trompe pas sur la liste de de de de Bamba Fall et pourtant il, il elle était de l'APR avec Seydou Gueye. léegi jege euh, ñaale Seydou yi ci audio yooyu dañuy wax ne dañuy vote contre. oui am na ñoo xam ne dañu ne du ñu voté du ñu voteel mukk Cheikh Ba Cheikh ay jege ñaale Seydou Gueye lañ. oui audio yooyu mi ngi circulé Seydou am na ko man am naa ko keneen am na ko. Cheikh Ba Cheikh Ba am na ko. ñëpp ko am yow mi sax wamatul am nga ko teg ma diil bàyyi ma si biir mais ñëpp am ji lan la wéyal. mais loolu ñaawlu ngeen ko quand même. ah bon en fait man je je c' est aujourd'hui que mun naa comprendre ne yooyu peut être am ma date mun naa comprendre dañu meroon je ça. mais quand nit looy def da koy assumer nga koy assumer man ñeme naa ne man du ma woteel Cheikh Ba. waaw mais mais yow li nga wax ni euh, jegeñaale Seydou yooyu dafa mel ni Seydou Gueye moom tim daf ko confirmer li tax daf ko confirmer mooy su dee tey euh, Médina commune Médina ni mu ni mu toll ñu jiital Cheikh Ba ci benn bokk yaakaar. Seydou dafa war a dem ànd ak Cheikh Ba ñu def campagne parallèlement mais munul nekk ci biir euh, dem di ànd ak Diouf Sarr au niveau de au niveau de la ville de Dakar wala muy campagne ci biir euh, ci biir Médina beneen bi seen meeting clôture euh, Seydou Gueye ñëwul. loolu lépp tamit dafay bu Seydou Gueye doxalee noonu euh, ay militant li ñuy liir mooy Seydou àndu ci. exactement mun na demee noonu mun nañ ko gisee noonu. exactement moo tax ma ne moom. moo comportement bi moo tax ma ne l'homme est défini dans les faits dans la pratique te loolu kenn duñ ko jàngal. non réaction bi Seydou di am. bañ a ñëw ci meeting bi loolu lépp euh, ay ay message la. yoo xam ne dama ne dans tous les quartiers. là où nous avons fait la proximité yendu fa dans tous les quartiers on aurait souhaité que les leaders politiques. les leaders des partis politiques surtout l'APR qui qui est censé être une locomotive pour la coalition Benno Bokk Yakaar je pense que dans tous les quartiers c'était l'occasion pour le ministre Seydou Gueye aussi d'y séjourner et de battre campagne le même jour avec Cheikh Ba ça c'est une logique politique waaw ngay laax jaay nga laax lekk waaw mais mais mais est-ce que Cheikh Ba tamit euh, amoon na programme bu convaincre euh, waa Médina ah oui ah oui d'ailleurs j'ai entendu le maire la dire hier dire que euh, candidat yi fi nekkoon ku mel ni Cheikh gars yi am nañ programme yoo xam ne euh, dañuy dañuy xool lañ si mën a jël ñu jël ko dugal ko parce que programme yu baax la ñun vraiment programme bi ñu amoon mooy li ma la wax rek programme adopté aux attentes des Médinois le programme moderne bien fait et bien présenté. mais mais am ngeen déception ci seen défaite bi quand même. bon déception oui. oui naturellement que ñun ku waxoon du ñu gagné du ñu ko Je t'assure, tout le monde disait que c'est la fin, c'est la fin, la Médina va changer. Bon, mais c'est vrai qu'il y a d'autres réalités politiques yoo xam ne mënoo ko wax fii. xam nañ lu bëri xam nañ lu bëri bon lu bëri day yàq lu bëri yàq na te bon danañ ko. rectifier mais mais est-ce que tamit euh, Bamba Fall di ñenn wax dëkkul Médina te ñu gis ne Médina naan Bamba Fall Bambey la dëkk ak dëkk. Euh, yàq na lu bëri. waaw ba pare naa ko wax gaa yi ma ne bàyyi leen discours boobu wax naa la ko fi benn jour ma ne loolu wax bu yàqu la Bamba mënuñu dëkk. jabaram di suñu jabar doomam yi di suñu doom waaye dama ne ñun Medina fii sax ku fi baax ñooy sa mbokk Bamba yax Kajoor ax fépp ku fi baax ñooy sa mbokk boobu noonu xam nga tey boo ne dëkkul dëkkul dëkkul Medina mais ñi fi dëkkul sax dañ lay mere yooyu am na xam ne dañ ko doon def pour man dañ ñu bëgg a sax te te te Medina dafa bëgg dafa bëri ñoo xam ne dañ fa luwee dañ waaye dama ne te te ñooy suñu mbokk sax uh-huh. waaye dama ku nekk fenn 40 ans man ku ma gën a bëgg sama kër sax ma ma ma jox la ko ku nekk fenn 40 ans nga ne dëkku fa kooku wax bu yàqu la même xam nga yéen Bamba bu ngeen ne dëkku fii ka nekk Medina di fa liggéeyee war faa voté si gis boppam dafay gis dëkk dëkk Louga wala dëkk xam nga xam nga nag kaay moo la loolu na dal ku nekk tamit parce que bon Bamba benn jour sax dégg naa ko bi muy wax affaire sport mu ne fii du Casamance xaw ma fii du fii du fii parce que nag benn moment di nga wax ne suñu Medina kooku ñëpp koy def suñu dëkk kooku nag dañ koy fierté boobu ñëpp ko war a am lenn nag moo war a am tamit bul xool loolu yow dugal sa loxo si vote foo xam ne yow mënoon nga fa bañ a bokk demal choisir fa nga war a choisir sa maire ñun ñu yor suñu responsabilité suñu dëkk nga bàyyi ñu tànn suñu maire foofu sot waru fa am dafa am lu muy niru lool du politique loolu du démocratie loolu mun na indi naa fekk la sax. waaw mais mais xam nga tey par exemple tey euh, man ki nga xam ne tey euh, dafa dëkk Bawal wala dafa dëkk Louga wala dafa dëkk Saint-Louis ñëw Medina di fa liggéeyee takk doomu médina euh, kooku kenn mun mënut ko génn. ci Medina si la bokk. si la bokk kay kooku dëkk Medina kan moo ko foog ba dëkk même bu fa takkul laa la wax koo xam ne fa la dëkk. di fa yeewoo mais fa la bokk. mais lan mooy stratégie Bamba ndax fu mu leen fekk da leen di door ba ngeen tëdd. déedéet tëdd <laughs> dóor ba ñu tëdd. non benn fu leen Bamba Fall fekk da leen di door ba ngeen tëdd. xam nga xam nga xam nga vous savez c'est pas seulement Bamba. c'est une réalité un peu partout quand boo xoolee surtout Bamba Fall. waaw non attends dama ne leen yërëm. dama ne non non dama ne dama ne. c'est une réalité Bamba xam na fu muy teg tànkam xam na lu muy def. Bamba du dof non Bamba politicien la ñun ñoo màggandoo am met ñu yar Bamba du dof Bamba tamit na yitte si nit ñi man mii di wax ak yow sama waay la nit ku baax la homme de terrain la nañu wax di dëgg nelawul tamit nelawul ba pare suñu njaboot ñoo nekk ak moom tamit xam na fu muy teg tànkam et puis beneen bi mooy dama ne tey fi nga xam ne yëpp opposition bi toujours ñu ngi fay gagné ba léegi ñoo fay gagné dafa am lu muy nuru nag euh, ñii nee nañu Benno Bokk Yaakaar ba la ñuy combattre ñii nee nañu euh, am na wax bu Mahmoud Saleh waxoon soo leen voté les présidents massivement. mooy cautionné ngeen troisième mandat yooyu yëpp lu yàq la. xaw ma nag lan lañ si jublu parce que parce que il faut être quand même munoo nekk côté président pour man di def erreur yu yu grave yooyu. mais damay dégg tamit ñuy wax ne euh, bulletin marron bi si boppam la ñenn ñu jublu. exactement c'est-à-dire am na ñoo xam ne dañ naan fas bi bëgguñu ko bon ok on peut comprendre c'est pas le cas du plateau avec Alioune Ndoye qui a gagné avec le, le cheval. Mm-hmm. vous venez à la Médina nous avons gagné le yeewu xaaju ñu jege sax. ak gëm sa bopp gis nga Bamba ñun lu ñun lu ñu rawee mun li ñu rawee yeewi askan bi mun nañu ko multiplier par 4 Bamba rawee wuñ ko ok nga dem yeneen dëkk yi am na foo xam ne ñu faluñu ñu yeewi askan bi ay yeneen candidat la ñu fa boo demee tey colda maam boobu Diawo gis nga dafa demal liste am fal nañ ko. nga dem yeneen localité noonu pour diir que nga dem tey boo demee Dalifort ku ñu fa fal nous on avait un candidat. su am nañ bi suñu écologiste boo xam ne Cheikh Diop bi nekkoon adjoint maire dafa dem ak gëm sa bopp mais Cheikh Diop ba mu demee gën sa bopp mbeng bi fa nekkoon benn boo ko yaakaar moo leen gagné. Mm-hmm. oui yi si des yëpp boo ñëwee tey ville de Dakar ça a toujours été entre les mains de l'opposition à un moment donné. mais mais est-ce que ville de Dakar euh, jàppoon nga Barthélémy Dias gagné Diouf saa hmm, bon. bon en politique je dirais jamais damay jàpp ne da koy gagné pour lan may man damay jàpp suñu coalition ñooy gagné et puis comme je l'ai toujours dit Diouf Sarr était un bon candidat parce que nekk président des cadres de la PR nekk doomu dëkk bi am yar yiw na yor ministre de la santé gis ngeen lu mu si liggéey wax dëgg yàlla da am yaakaar te loolu nit ku soxoru da koy wax Diouf Sarr am na yiw bu mu yiw boo xam ne wax dëgg yàlla te wane na ko te jàmbaar la am na jaar-jaar bu am solo loolu moom il faut qu'on le concède ça su président demee ba ci porte choix am si moom na lu mu def maintenant nag comme ni ma wax Dakar outil bu am doole la nga xam ne peut-être opposition bi bëgguñu ko bàyyil parce que xam nañ ne bu ñu ko bàyyilee peut-être ñun lu ñu bëggoon sax mooy gën a yomb maanaam maire qui est de la même mouvance que le président parce que liggéey bi day gën a yomb mais je pense que Barthélémy wax na ko ils vont travailler avec l'État mais ñu jàpp rek ne ñun ñëpp benn la ñu Barthélémy papaam su ñun la bokk benn boo ko yaakaar c'est que nag sénégalais yi laa comprendre. mais li ñu leen dóor ci euh, ville de Dakar dóor yi dafa métti. ñu dóor ñun moom la ñu dóor papaam rek ñun la ñu dóor. ñun la ñu door ak papaam jox ko doom ji mais sénégalais mooy voté noonu seen affaire la mais dama xam gëm ne rek man hmm, voilà. mais mais mais mais Médina dafa bëri woon tension lu waral loolu ci élection yi. waaw c'est que xam nga bi yoon nag bon Bamba dafa tase ay gaynde nag bi yoon moom ay gaynde dëgg la tase bi yoon moom bi moom xaw na xam na ne bii moom ay xof ñun kenn duñu mën xoo xooxutal non non non kenn mënuñu xooxutal bii moom dañ ko wan ne ko fii Médina ñoo taxaw te du gis na ko sax te ñëpp gëm nañ ko yow sax gis nga ko ñun moom du ñu daw du ñu xob du ñu ay ragal mais nag après cocc la yëpp def yëpp réglé na après. waaw ah, mais Medina daal fu mu leen fekk moom. Euh. waaw mais non c'est il faut le féliciter. c'est l'occasion de le féliciter comme je l'ai fait à Ndion mon ami Ndion hier rek je l'ai eu téléphone de Cosec. Ndion nga xam ne jas tamit moom benn boo ko yaakaar la bokk mais dafa demal boppam gagné. d'accord jërëjëf voilà. Euh, jërëjëf euh, Alioune Sané yow yaay coordonnateur de la fédération démocratique des écolo des écologistes de Dakar. Euh, mbokki réew mi FM ngeen di déglu seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, léegi yéen écologistes yi yéen dafa mel ni yéen moom tekkiwu leen dara ci biir Benno Bokk Yaakaar lan moo ci sa réaction ci li ma la wax. boo au ñun place bi ñu am si biir Benno ñun ñoo koy jox suñu bopp ah te foog naa ne tey boo ñëwee Medina wax écologistes du ñu la ne amuñu fi njëriñ nga dem yeneen localité duñu la ne écologistes yi ku mel ni yëmbal wala. duñ ñu ne écologiste yi amuñu fi njëriñ mais c'est vrai que euh, fi ñu waroon taxaw taxawuñ fa te loolu tamit la responsabilité wax naa ko suñu biir group ñu ngi koy waxtaane temps yi yëpp te je pense que c'est la responsabilité de Aïdar quand même parce que tamit Macky deseeruñu dara li mu war a def mi ngi koy def il l'a fait ministre deux fois aujourd'hui def na ko directeur général mais tey këm naa ne tey bu ñu bu ñu Aïdar wooyee nañu nañu dem dans benn Bokk Yaakaar bañ a def comme élection yi fi passé parce que dañu bëgg bi yoon président dafa bëgg ñëpp ànd ñu gagnandoo. je que c'est bien que aussi notre secrétaire général nous accompagne c'est important symboliquement comme moi j'ai accompagné la coalition à la Médina mais tey un directeur général a les moyens de soutenir son parti parce que tamit boo waxee ay nit ñu ànd ak ay nawle dafa am nu ñuy ànd ak ñoom. rafetoon na mais yéen itam euh, dafa mel ni da ngeen amul benn ambition ànd ak Ali Aydar comme ça mel ni ko gëm seen i bët. déedéet déedéet gëmmuñu de dama la laaj sama gars yi man aw ma lu mu dul wax Aydar loo foogul rek dama koy wax Aydar c' est vrai que nag Aydar fu mu ne nii moo war a def moo war a jouer rôle am et c' est pas le cas. ah jouer rôle am non pour le moment il joue pas son rôle. parce que su doon day jouer rôle am man sama xalaat tey doo ma laaj lii ma tontu de lii parce que yow xam nga man je suis honnête je dis la vérité je dis la vérité Aydar n'a pas joué son rôle bon parce que bon dafa feebar c' est vrai. mais ku feebar doo bàyyi ba campagne jeex élection jeex ngay dem di def bilan ci TFM ci télé bi pense que. bilan fan. invité nañ ko rajo TFM mu dem wax bon ñëpp seetaan nañ ko. mais est-ce que mais est-ce que si élection yi woowoon na leen yéen ñi bokk ci euh, fédération bi pour ni ngeen di waajalee élection législative yi élection locale yi pardon élection locale yi ak benn bokk yaakaar. non joxe na woon joxe na woon ay consignes ba ñun directoire bi ñu dajee boobu avant muy feebar la. Hmm. mu ne dafa bëgg daal ñu ànd. mu woon na mu bureau am toog nañu waxtaan si ndax man ak Jibi ak Michel je crois waxtaan mu ne ma ah Sané bu doon sa sago loo xalaat ma ne ko ñu àndax benn amul problème mais bi ñu toogee directoire tamit ñun ñëpp ñu amandé loolu ànd si ñaar ñoo si àndul parce que ñoom dañu amoon réalité seen koñ muy Dalifor Cheikh Diop adjoint maire sortant ak maam Thierno bu Bambey parce que maam Thierno dafa ne woon foofu ku àndax kooku doo dem donc moom ñu doon ñaar yooyu moo doon suñu problème ak Kolda. Hmm. bi nga xam ne boo le jeune Dikori ñoom BA. ñoo ñu fa nekkal ñoom ñoo mujj ànd ak maam booy gagné gis nga. parce que bu ñëwoon ànd ak Bibi donc pour vous dire. Dalifort la. Dalifort bon finalement on a perdu. Cheikh moo doon tête de liste gëm sa bopp. mais je pense que Mbeng moo fa gagné donc yooyu la ñu amoon problème mais mais dañu ne ku mu neex nga dem mais c'est pas au nom du parti. maintenant la majorité ont accepté d'aller sa fondre dans le Benno tout en sa que nag tey xam nga suñu ñëwee Médina duñu fi bàyyi Seydou bàyyi fi Cheikh ba jël ma. en toute honnêteté te bu ñu xamoon ne sax dinaa gagné peut-être duñ ko def donc ñun xamoon nañ ne tamit du yomb si ñun mais dafa rafet suñu parti jàppale ñu accompagne ñu c'est pas le cas je le dis parce que tamit man politique guma politique boo xam ne su ma bëggee wax su ma fulu ko wax dama koy wax ay daal ñi mu bëgg a jàppale ay njabootam wala waa këram mi ngi koy def wala problème ñun waxuñu mu jàppale ñu ñoo ànd di liggéey hmm. bu déggee ministre ñun la bu gëstoo gisu fa doomam ñun lay gis bu déggee directeur ñun la mu neex ko mu naqari ko makkee ko ku gën a xam ñi nekk fii di man bokkuma si genre yooyu man je te dis la vérité parce que loolu ñu seq musul xam suma problème musum toog ma ne ko may ma lii rek régleel ma lii musul am ñoom ñëpp nag ku la ko fi wax waxul dëgg donc terewul lii rek laa am nag ma vérité ma vérité ma dignité mooy li ko mi ko waroon defu ko bu dee dafa manqué expérience politique ñu xelal ko parce que kenn du politique nii ay nit doo leen ne dem leen guerre yi leen arme yanul maanaam. da euh, da leen di fàkkatal. mais koo ne demal guerre joxoo ko arme kay dee na ba pare. mais même ci élection yi euh, amutoon yenn moyen. pour aucun moyen du benn affiche sax. ah bon mais c'est un directeur général quand même xanaa Aïda directeur général la xam yow dégg nga li ma lay wax Aïda mun joon sama xarit démb rek ñu waxtaan moom bu demee ba gañu jas directeur général la pourtant. mais gis nga gagné na jas foo génn ay moyens dem politique. mais mais écologistes yi dañu gis ne dafa bëri euh, ay cadres euh, lu jëm ci wàllum nomination lu tax yéen joxuñu leen yenn kii. waaw non c'est que xam nga dafa am yooyu tamit yaa a réalité réalités y a d'autres réalités gis nga tey boo ànd ak état y a beaucoup de possibilités pour tes hommes jusqu'aux gardiens jusqu'aux assistants jusqu'aux cadres certes y a un travail que Aïda devait faire aussi c'est recruter des cadres davantage dans le parti. Mais souvent, le constat, c'est quoi comme si on ne voulait pas avancer. on dit que chez les écolos, on dit souvent, on n'appelle pas des cadres, on ne dit pas des cadres. On est écolo, on est écolo. Maintenant, ce pas une raison pour ne pas recruter des administrateurs civils. Ce n'est pas une raison pour ne pas recruter des inspecteurs des impôts ou des journalistes, on en a d'ailleurs. Mais c'est comme ça, un parti doit s'élargir, doit s'agrandir, possibilité yi nga xam ne président de la république jox na ko ko daf ko war a profiter pour agrandir le parti c' est pas le cas. mais est ce que yéen a ngi def ay réunions di def ay tournées. non on fait des réunions normales ah, gis nga am nañ benn groupe boo xam ne chaque jour ñu ngi waxtaan réunion dinañ koy def mais euh, am na ñoo xam ne dañuy mer. loolu dem ni mer la. non parce que la façon dont on fonctionne pour ñoom affaire yi waroon nu mën a gën a avancer que nii par exemple tey. Aïdar luñ ko jox daf si écolo yi daf la war a faxe ñu gis seen bopp. boole leen ci waaw mais affaire bi du ay euh, toujours le mêmes hommes du affaire wu yaa ko moom du affaire yow yaa compétent fii kenn ñëpp compétence su ñu seet ku dàq jàng am na ku la dàq jàng téeméeri junni yoon bu dee compétence am na ku la gën a compétent téeméeri junni yoon wax ji du loolu wax ji mooy ñoo ànd Macky Sall ñu mu àndal ñëpp gis nañ seen bopp. Mm. loolu mooy wax ji ñun nag liggéeyuñu pour Aïdar. ñun dañuy liggéey pour Sénégal donc moom la mu la mbëtt bëgg la la la la mu bëgg la ñu bëgg wax ji loolu la. mais da leen seetaan daal. ah mais seetaan weesuwul ñu dem élection tu n'as même pas daigné nous nous nous lancer un dernier appel même si tu malade mais si c'est le cas ok c'est bon sax mais bu élection yi passé nga noppi da nga feebar jarul ngay dem télé di wax looy wax di def di def situation bilan élection yi non amoo si droit. tey tey sa parti amul benn jéego boo def. defoo benn jéego ba pare ñun ñoo dem ñafe ji ñun nga waroon déglu ñu def bilan pas yow. su doon moom ak moom benn du gagné fenn. non du gagné fenn parce que nee na Jibeloor moom jàppale na femme bi fa nekk kooku gagné na Jibeloor fa la dëkk bon Jibeloor c'est vrai que électorat bi bon demeewul noonu. mais war na waroon na man waroon naa gëm ne man pour lan mu jàppale ki nekk Jibeloor rek. bàyyi ñu nekk Dakar wala bàyyi ñu nekk. Euh, li ma seetlu mooy yéen euh, seen fédération bi ëmb écologie si euh, Alé Dar jiite ko ngeen nekk ci benn bokk yaakaar yéen bi ñuy investir maire yi ci Sénégal gi yëpp lan moo tax investiruñ koo xam ne yéen ci seen fédération bi au moins la bokk. waa xam nga loolu toujours dama koy wax dama ne moom lay répété dama ne lu rôle lu ay Dar la woon parce que tey pour la cohésion de not groupe de bennoo ñun dañuy du ñu ànd ak yow di la faxas faxasal mais tey war naa mun a wax par exemple tey mënoon naa jóg ne mais ñun dañu bëgg a jiite mais gis nga dañu rafetal gis nga man processus bi ma yoroon avec le Benno dans la Médina gis nga ni ma ko géré ba génn candidat yi te gis nga bëgguma si dara mais ñoo la gën a xam ne ñu si bëri ñu nekkoon candidat ñoo la gën a xam ne ma gënuñu ma yelloo nekk candidat ba may nekk candidat nekkuñu candidat mais dama woon xam nga tey yàgg naa bëgg boobu ñoom bëgguñu. mais dama ne tey bàyyi ma woon leen ñu demee yëwét gaal yëgoo Benno ko Yaakaar bi te noonu lañ ko doxalee wax dëgg yàlla ba ñëpp rafetlu ko ñëpp rafetlu liggéey bi sans exception amul du Seydou Gueye du Cheikh Ba du man du keneen ñëpp rafetlu liggéey boobu mais dama yaakaar ne ay Aïdar si boppam moom waroon na mun a am ambition sax ba pare jàppale ay nitam pour ambition mais dafa mel ni moom tout repose sur lui c'est pas bon en politique tout repose sur toi c'est pas bon boo demee si Macky Sall waxal suñuy wax bu fa wax sa wax yow kenn affaire yi bon parce que ñun dañuy. du méchanceté non du méchanceté ñun dañuy politique. lii may wax nii man maa ko tey di ko wax tey si rajo bi pour nit ñi dégg ma Aïdar dégg ma ñi ma àndal dégg ma parce que xam nañ ne am naa fulla boobu li may wax Aïdar moo raw li may wax rajo fii ñoom xam nañ ma. li may doxalinam daal non non mais la preuve pourquoi c'est pas bon. la façon dont il fait la politique moi je suis pas d'accord c'est pas politique da ngay éviter nit ñi di ñëw di dem. politique da ngay nit ñi di ñëw di dem politique booy ànd ak say nawle dañuy gis avancement dañuy avancer. moom est-ce que nawloo na ñu nekk si parti bi. bon si nee naa la l'homme est défini dans les faits dans la pratique si sa jëfin lañ koy xoolee. nawloo bi weesuwul élection yi dégguñu la da nga ne woon da feebar. ok on te reconcerte mais boo toogee si télé bi nag naan jàppale naa diw gañe na. kenn te yow nga war a yuuf wuuf ñëpp nga jiite ñi ñëpp nga ne jàppale nga diw jàppale diw boobu noo ko jàppale président jàppale la yow nga jàppale diw ñun nga bàyyi ñu. waaw mais dégg naa yéen écologistes yi Dakar euh, ay réunion de crise rek ngeen di défendre seen réunion yi comme ay réunion de crise réunion yoo xam ne day tàng jër ñaxte yi. non sans ay daal bon au fait c'est c'est vrai que boo xoolee sax benn moment dafay indi découragement. am na waaw dafa am ñu bëri ñoo xam ne da ngay sonn sax da ngay xam ne ku mel ni man damay mujj ne bàyyil ma gérer Médina rek def li ma mën mais on aurait souhaité que Aïdar def politique bàyyi li muy def mu def politique affaire bi du yow rek ñu lay par exemple li mu dem RFM man mënoon naa dem maa ko gën a yellool fuuf wax ci élection yi. fuuf d'accord mais mais. Euh... parce que man maa nekkoon acteur ci élection yi ak ñeneen ñeneen ñun ñoo war a dem télé wax mais moom. bu contribué wul ci élection yi baatul campagne warul dem tele mu ne jàppale naa diw Casamance ba pare di def bilan wu élection yi te nekku fi woon. te jàpp si donc man je pense que mais, il était plus diplomatique. mais est que yow euh, sa réaction bi au niveau national jàpp nga ne euh, ñu bari nii lañ xalaatee. boy beaucoup partagent mon mes idées hein, beaucoup beaucoup et j'ai j'ai on a on a les preuves beaucoup oui oui les gens parlent nit ñi ak kenn moomu leen de wax naa ko waxaat ko ay yow yaa war a góorgóorlu. ay daar moo war a góorgóorlu wax naa ko ko amal sa fulla sa fayda nga xam ne yow da nga war a góorlu dëggal boppam dëggal sa bopp ba pare écologiste bi ngay woote moomoo ko écolo dafa war a am fulla am fayda écolo day bokk. écolo day yëg moromam beneen bi tamit ngay wax sa dëgg Macky Sall peut-être ay daar parce que xam naa ne saa yu buggee woo Macky woo ko président saa yu buggee dem foofu dem fa mais dama ne est-ce que suñu wax la fay wax. wax ji loolu la ñun nag si yooyu dañ see tay yi d'accord mais est-ce que te nag xoolal on est écolo aujourd'hui écolo jusqu'à mort parce que écolo du retraité de écolo du retraité on est écolo jusqu'à la mort. voilà. léegi euh, est-ce que élection législative bi tamit ñëw ñu seetaan naat leen comme ni ñu def ci local yi. non lii moo tax may wax ni pour éviter yooyu moo tax may wax. te am na loo xam ne dootu leen ko nangu. mukk musuñu ko nangu sax. Mhm. musuñu ko nangu mais nag parce que président tamit la conférence des leaders peut-être président mag ab euh, lay waxal ay daar peut-être tamit Aïdar yónniwul ñeneen ñu gis leen ne ñii ñoo ànd ak Aïdar Aïdar rek la ñuy gis saxalal garab protégion le fond marin mais loolu c'est normal xam nañ ko loolu ñëpp xam nañ ko saxal garab Aïdar nee naa garab yi nekk fii ñoo ko mag mag waa këram yëpp mag président Macky Sall garab yi nekk Dakar donc problème bi du du dëgg la la répétition pédagogique mais am na si yoo xam ne jiili mun na la ko waxal saani mun na ko wax soxlawul yow ñu lay gis chaque jour bu ñu lay gis chaque jour dañuy foog ne yow rek a fi nekk mmh. moo tax yow rek lañuy ñuy fal yow rek la ñuy nommer yow rek la sa voix autorisée. yow kon Aly Dar promotion boppam rek la def. mais bu bu bu Aydar wootee réunion ñëpp ñëw bu bu wootewul réunion ñëpp du ñu ñëw ça c'est pas bon. parce que tu tout focalisé sur toi. c'est pas bon ñun nag moyens yi ñu am jàppale comme ni ñu ko jàppale coalition bi biir Médina am moyens yooyu di jàppale réew mi jàppale Ndakaaru moyens am nañ ko pour jàppale suñu parti am na si yoo xam ne sax maa ngi koy def di jàppale ay nit si biir mais duma ko wax. si biir parti bi ñoom ñu ngi may remercier seen bopp peut-être et puis ñoom bu jotee peut-être ñu waxal ko seen bopp mais dama la bëgg wax ne moom ay daar mhm. moo war a góorgóorlu côté boobu parce que da nga laal suma parti nag man li fa am laa lay wax dañuy politique nag nekkuñu fi di théâtre nekkuñu fi yoruñu famille kenn on est en politique ay daar moo war a góorgóorlu sama wax leer na moom moo war a góorgóorlu te damay demander président Macky Sall tamit mu wax moom nous sommes des partenaires liggéey ay daar moo war a jàppale parti bi ñu jàppale coalition bi mais bu dee nii du ñu gagné dara duñu on sera jamais maire on sera jamais député et on aura moins de toujours un seul directeur ou un seul ministre affaire du séddoo Macky Sall jikko góor lay demee ñi mu àndal ñëpp si wetam la leen teg loolu mooy gor booy ànd ak ay nit da ngay ànd ak ñoom pour le meilleur pour le pire loolu Macky di doxalee nag ay daa daf ko doxalee ma Samba doxalee ko ma Demba doxalee ko tey bu Sané nekkee député du man bu ma nekkoon député tey partie bi gën a yaatu yaatu. Mm-hmm. bu nekkoon député tey parti bi gën a yaatu effort yi muy def pour. par exemple son association Océanium qui est une association man mii am naa fa diplôme je membre def nañ ko si effort yi muy def foofu effort yooyu la war a def si parti bi parce que ay daal li ko desee du sax wax saxal leen garab nettoyer leen de fond marin loolu xale yi ñun mun xale yu ndaw yi sax mun nañ ñu ko defal léegi parce que l'écologie et une option est une est un passage ah, obligé mais mhm. politique de l'écologie la war a def la politique de l'écologie mooy chercher des acteurs de l'écologie pour la politique de l'écologie recruter de nouveaux membres yaatal parti bi ay jigéen ñu am fulla ay góor yu am fulla des gens des intellectuels des gens qui ont l'expérience politique et peut-être euh, dans plusieurs domaines il c'est possible parce que ñu bëri bëgg nañ liggéey ak ñun ñun ñaa ngi waxtaan ak man ñi ngi waxtaan ak Aïdar mais je pense que si Aïdar la des Aïdar moo war a yaatal li may wax nii ñi may wax xam nañ bu baax li may wax waa parti bi yëpp xam nañ li may wax te waroon nañ am possibilité sax ñoom ñu mën a woote laaj te duñ ko def sax ku si ku confirmer lu may wax doo fa laaj. d'accord voilà. Euh, jërëjëf euh, Alioune euh, Sané yow yaay coordonnateur de la fédération. démocratique des écologistes de de Dakar léegi euh, tout euh, ñu wax nag euh, ci li nga xamante ni tey moom mooy leneen lu am ci réew mi une rek sa xalaat gis nañ ne wàllum njàng meek njàngale mi dafa gàllankooru grève yi bëri na tey jii si samedi ci sax parents d'élèves yi danañu def manifestation ci place de l'Obélisque lan moo ci sa xalaat. oui bon di ko ñaawlu rek parce que bon ñu wax dëgg yàlla gënaluñu daal hmm, secteur am na secteur yoo xam ne chaque jour jàppal bàyyil chaque jour jàppal bon c'est vrai que tamit boo xoolee le monde de l'école c'est compliqué parce que aujourd'hui c'est vrai que y a la sur surpopulation des écoles ah c'est des élèves classes yi dafa fees problème yi dafay bëri. état bi du day signé ay accord du respecté. attention xam nga depuis que par exemple l'état du Sénégal existe combien d'accords ont été signés en tout cas sur les primes de recherche déggatoo ko indemnité de recherche déggatoo ko ak yeneen ak yeneen. syndicalistes yi tamit dañu ay yow xam nga si dara muy santé muy éducation aay lañ def. syndicaliste waaw nga nekk santé xanaa. man ñoo ma fa tëwal. fan la clinique ah. ñoom ñoo ma fa tëwal. ne dema dema dem indi seen gars yi ñoom fu ñu fu ñu fu ñu song indi la problème syndicaliste tamit ñoom nekkuñu liggéeyal bon beneen bi mooy. waaw bi bu signé ay accord d'accord respecté. non je suis d'accord je suis entièrement d'accord si l'accord est signé. sur la base de date de délai oui je suis d'accord qu'on respecte les accords te foog naa ne tamit état war nañu am seen responsabilité bu toll nii lu ñu mënul duñ ko signé. lu ñu mënul def duñ ko signé. mais lu ñu signé war nañ ko war tamit dañ ko war a def. parce que engagement boobu signature boobu réew mi ngay sargal. réew mi ngay jox gëddëm da nga war a respecter signature boobu loolu dafa am solo. d'accord mais gis nañ tamit euh, dund gi dafa metti si ñenn ñi dëkk bi dëgër metti xaalis amul yenn njëg yokk loolu lan moo ci sa xalaat en tant que père de am na suñu mu metti

et puis euh, tout le monde n'a pas les moyens je suis entièrement d'accord mais fii nag réew mi moom bu ñu ne xaalis amu fi parce que fii moom la ñuy organiser la ñuy sol la ñuy génn si xaalis maa ngi koy gis yaa ngi koy gis oto yi rafet yaa ngi fi kër yaa ngi gën a yokk wàññeekuwul. mais ñoo ñu minorité lañ ci population waaw minorité mais minorité minorité fépp soo déggee maanaam non minorité non fii chaque nga dégg ngénte yaa ngi dégg takk yi yaa ngi dégg xawaara yi yaa ngi dégg yëpp fii du question minorité la Sénégalais yëpp dañ koy def da gis koo xam ne sax. amul cinquante mille par weer di sol dàllu dàllu cinquante mille da ngay gis koo xam ne amul cinquante mille par weer di sol basin jasner il faut qu'on se la vérité njëgu yokk yi waaw c'est c'est c'est comme ça ma ne président wax na ko je pense il faut que ñu jéem a góorgóorlu wàññi affaire yi. kon ñaawlu woo njëgu yokk yi. si si dañ koy ñaawlu bugguñu ko bu yokkoo si ñoom day yokk si man day yokk si ñëpp yokk bi baaxul parce que niveau de vie yi day compliqué c'est vrai je ne dis pas que. amul ñu xiif amul ñu sonn non je le dirai jamais y en bien sûr mais dama ne nañu gars yi jàppale nañu société yi jàppale par exemple tey man ñaata at maa ngi yëngu si ceebu waalo xam naa fu mu toll xam naa jafe-jafe yi nekk si ci ceeb bi souvent xam naa prix yi nu mu yéegee di wàcc donc dama ne société yi yu si bëri ñoom ñoo war a fexe bañ a yokk jàppale ñu bañ a yokk parce que tamit ñu jàppale askan bi parce que boo demee ba sponsorisé di sponsoriser ay ay soirée ay ay football ay lamb loolu ngay dugal foofu xam nga yaa ngi jàppale activité yooyu yaa ngi jàppale promoteur bi yaa ngi jàppale lutteur yi mais nañu sponsoriser askan bi par exemple nga ne lii naa ko def pour wàññi njëgu njëgu li may jaayee pour askan bi mun a yëg ne ñun sponsoriser nañ leen mm-hmm. bañ ko def rek si nga xam ne ñoom am nañu seen alal ba pare di organiser nga yokku leen doole mm-hmm. askan bi nga xam ne nag ñoom amuñu dara ñoom ñoo jënd produit bi te bu ñu ko jëndee xaalis boobu du dugg yow ñeneen ñi nga dem jox ko d'accord léegi euh, euh, jërëjëf euh, Alioune Sané Alioune Sané yow yaay coordinateur de la fédération démocratique des écologistes de Dakar yéen écologistes yi ngeen bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar léegi ñuy waajal élection législative yi incha allah ñu gis ne élection locale yi yeewi askan wi dañu leen jàpp fu bare bare bari dóor leen ba ngeen tëdd Euh, ngeen am ay surprise yu mag a mag a mag est-ce que jàpp leen ne bu ngeen demee bu ñu demee tamit ci ay élections législatives euh, yeeyu askan dina jaar ak yéen fi mu jaaroon ak yéen ci élections locales yi. waa d'abord boo nee dóor ba ñu tëdd dama ne fii élections yi fi mu sa am depuis 2012 ba léegi ñooy gagné Sénégal yépp Sénégal yépp ñoo koy gagné excepté yenn dëkk yu ñu dul gagné te loolu taxul ñoo gagné. mais commune yu ndaw yi. non dama ne donc commune ndawul commune du ndaw. mais mën xaaral la non mën ngeen a gagné dix communes yoo xam ne benn commune moo ko xam nga foofu lan ngeen di réere mbir boo jëlee lu mel ni Dakar la Yewwi Askan Wi a eu cent et quelques mille votants hmm. ñun on a eu combien quatre-vingt-un et quelques mille non Dakar il faut pas ngeen non Dakar dañu leen doublé euh, ville euh, ville de Dakar déedéet doublé wu ñu de doublé wu ñu. Euh, ville de Dakar Barthélémy Dias Abdoulaye Diouf Sarr. ñu doublé naka. de maanaam li mu fi am li askan wi am. xoolal yi déedéet xam nga xam nga la doublé déedéet. xam nga doublé wu ñu xam nga man lan laa la bëgg a wax. dama la bëgg wax ne li fi nekk ñoo ko séddoo. am nañ luñ ñu ëppalee tuuti. mais Ndakaaru ñoo ko séddoo. fiñ ñu gagné yëpp ñoo ko séddoo bu ñu jëlul P ñoo jël deux. Mhm. dafa mel ni nga comme Médina bu leen wax comme si Dakar yëpp dañu jox bopp coalition Benno bu déedéet bu leen cent et quelques mille joxee seen bopp ñun ñun quatre vingt et quelques mille jox nañu suñu bopp. Mhm. attention. ok tey kon bu ñu foog ne dak demal géejawaay nga laaj leen score bi la ñu rawee Benno Bokk Yaakaar nga xam ne kon waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi fa nga dem feneen noonu lu tax gagné wuñu Saint-Louis. d'accord léegi donc pour wax leen ne effectivement. ñun ñoo ëpp li ñuy gagné toujours. d'accord léegi. Euh, xoolal léegi léegi xaaral ma génneel euh, Dakar. Mhm. Euh, ma ngi nii la victoire est sans. oui euh, appels Barthélémy Diaz. contre 81. voilà presque presque gis nga da leen a doublé. 80 waaw 173 173 ngeen am 81 ngeen am. 81 c'est vrai oui leen wan. peut non mais justement non je suis d'accord que c'est bon. wax nga dëgg parce que 173 moi jama jàppoon 111 000 173 voilà 173 ok mais dama ne ñun mine de rien Dakar on a 81 000 personnes qui ont voté pour nous. waaw mais est-ce que tamit xam nga ne euh, écart bi leen euh, Yewwi gagné ci euh, rawee ci xaar ma explique la. écart bi leen Yewwi rawee. ci ville de Dakar. waaw écart boobu. plus de 80 000 mille waaw est-ce que xam nga ne mën ngaa jël 20 communes. waaw ci monde rural bi yoo xam ne seen électorat yëpp boo ko boole woon. du mat du mat ne. si no dama ne boo jëlee tey plateau ak Médina rek gis nga plateau benn boo ko yaakaar mi ngi rawee yeewee askan bi presque 4000 voix nga ñëw Médina ñun rawee nañ leen 3000 et quelques voix kon pour wax ne ne 4000 plus 3000 7000 la déjà. non lii ci département bi. waaw non dama ne non mais si biir département bi la. loolu si biir département bi la si commune bi lañ nekk. dama ne on a compris que Dakar moom les gens voulaient voter contre le pouvoir. ça on le sait. même même feneen. même si mais pas surtout le Sénégal. bu Thiès dañ leen door ba ñeent tëdd. non Thiès Thiès ku ko gagné woon. mais si Benno la bokk. waa xaaral ma wala Thiès xam nañ lu fa xew. ci Benno la bokk. waaw waaw dama ne écologiste yi bokkee ci Benno. non après la ñëw Benno. waaw après la ñëw Benno. mais dafa demoon rek te ñëw boobu. te ñëw boobu tamit am na ñu naan coûté nañu cher. ñu naan coûté nañu cher. parce que loolu peut-être am na Thiès waa yu bari yoo xam ne bu ñu waxee man dañ ma naan si Idi ñëwee si yéen lañ leen mere parce que pour ñoom bon ñëw boobu gisuñu woon Idi moo doon chef de l'opposition gisuñu woon pourquoi. Ah, mu bàyyil place bi Sonko li ma la bëgg expliquer yéen. xam nga boo demee ci monde rural bi bëri na fu bennoo yi gagné. mais man dama xam monde rural bi foo xam ne boo xooloon ñi voté ñëpp mëtuñu 1000. Hmm. am na foo xam ne mëtuñu 1000 am na ñoo war a mëtuñu 2000. xam nga commune boo xam ne yéen la ngeen fa am si voix ci monde rural 700 voix la 700 euh, mën nga cee boole plus de 30 communes yoo xam ne. Euh, fenn benn commune bu mag rek presque. Euh, non dama ne la bu ñu defoon totalité des électeurs qui ont voté lors de ces dernières élections ñun ñoo ëppale votant loolu mooy wax ji kon amu leen defet dama ne am si si on a mais dama ne la li ma la wax jiri dégg nga ko baax importante dama ne waaye oh, toutes les villes son importantes y a pas une une ville ou une commune qui n'est pas importante dama ne soo jëlee totalité des votants ñun ba léegi ñooy ñoo raw Sénégal téeméeri junni yoon. d'accord mais léegi man léegi nag benn benn voilà loolu tam da nga koy jàpp ñu bañ a def analyse rek parce que gagné nga géejawaay mais géejawaay gagné nga géejawaay tey lañ ko gagné. dakaar gagné nañ ko bu yàgg xalifa Sall gagné na woon ko donc problème bi du loolu ñun amuñu problème boobu li problème bi li leer mooy majorité boobu sénégalais yi ñun la ñu àndal ba léegi. d'accord yéen dafa mel ni euh, yéen tey élection ku gagné bu ngeen perte ville de Thiès ni mu amee solo. waaw ville de Touba Touba. Mhm. ni mu amee solo ci mhm. Sénégal. Mhm. ngeen perte ko dem Ziguinchor. perte ko région bu mel noonu ngeen perte ko. ngeen dem fu mel ne Kaolack ngeen perte ko. ville de Dakar ngeen perte ko. Euh, Géejiwaay euh, ngeen perte ko mais xam nga yii yëpp bu ngeen ko pertee. Kolda ñu gagné ko doo ko wax. Euh, waaw saint ñu gagné ko doo ko wax. Matam doo wax fi ñu gagné yëpp yow fi ñuy perte rek wax. ngeen perte ngeen perte foofu ñu perte yëpp. ñu Diourbel aussi foofu ñu perte yëpp dafa am lu tax. gars yi def nañ analyse yi xam nañ lu tax boo jëlee Diourbel am na ñu naan euh, kii Sarr nu mu tëddee euh, la maire sortante. Euh, Malick Fall mm, non non Diourbel waaw Malick Fall bon Dame Diop ba fa nekkoon. Mm-hmm. mais xam nañu parce que tey yaakaar bi Diourbel yëpp amoon si Dame xamoon nañ ko mais comme ni ma la wax c'est c'est une région un peu quand même. même Touba wane na ko toujours da koy wane toujours par rapport ak fas bi parce que bon loolu ñu ñu ngi siy xalaat lan moo tax. mais terewul nag terewul dinañ jël deuxième toujours. mooy li ma la wax tey. d'accord yéen yéen yéen ñi ngi ngi fa yéen que li xew. ci élection locale yi. Mm-hmm. ndax yow xam nga tey par exemple tey département. Mm-hmm. yéen mën ngeen a gagné ay département yu bari yoo xam ne. Mm-hmm. par exemple tey ñaari député rek lay am boo gañëw yéen bu ngeen gañoon département Bambey deux députés la. ngeen gañe département Diourbel deux députés. Yewwi gañe département Mbacké comme ni nga ko gañe mu nekk cinq députés. déjà yéen déjà yéen. déjà yéen man yéen département yi ngeen gañee da ngeen gañe trois départements. Yewwi day gagné benn département boo xam ne da ngeen di tolloo député ndax yéen boo xooloon département Mbacké. non xam nga yow euh, fan nga yow uh-huh. toujours gis nga ñun assemblée bii fi nekk sax raw gàddu gi ñoo ko jël. Uh-huh. mais Dakar gagné wuñu waaw dama ne. a uh-huh. bii élection yi laay wax municipal yi xam nga gagné wuñu Dakar. mais ku la wax ne duñ ko gagné si élection législative il n'est pas que Euh, que que que ils ont voté. wala ngeen yaakaar ne euh, coupe bi fi ñëw dina tax Sénégal kontaan ba. ñenn ñi lañ jàppoon mais yow coupe boobu jar na kontaan. mais jar na kontaan mais. mais attends attends jili dama ne jili bu dee koo xam ne indiwoo coupe wax a wax ba falu ñu indiwul coupe di wax wax ba ñu fal leen waaye waaye nañu may nag ñoo xam ne wax rek la ñuy def ba ñu fal leen na nañu may nag ki indi coupe ñu fal ko non dañuy waxtaan dëgg coupe coupe d'Afrique da nga foog ne ko indi. il faut qu'on soit sérieux joueurs yi yi indi joueurs yi lu ñu indi. coupe d'Afrique mais xanaa du ñu ay joueurs. Mm-hmm. ko indi dama ne xanaa du ñu ay joueurs. mais damay bañ ngeen jàpp ne yéen ko fi indi rek. waaye nguuru indi joueurs yi ñoo leen jël jël entraîneur jël leen jox leen moyen dem leen football indil ñu coupe bi jox leen drapeau bi ba indi militaires yi du xanaa du ñu ay sénégalais. équipe nationale lambax basket yëpp a yam ku fi dem nguur la yónni. mais mais élection législative gis parti bu yónni équipe football. mais élection législative yi euh, jàpp ngeen ne yeewi du ñu ñëw écraser leen. non bu ñu xam nga nag kaay mu wax la benn affaire man yaakaaruma loolu man yaakaaruma ne yeewi du ñu askan bi xam nga yeew bi lépp day dépendre si orientation yi président def parce que am na si vote yoo xam ne xam nañ lan la xam nañ lu ko motiver xam nañ lu bëri xam nañ li motiver vote yi am na si ñoo xam ne ñu ngi naan président warul def troisième mandat. am na si débat yu bëri yu nekk si biir. est-ce que mun affaire gu ñaari tur yeeg loolu yëpp mun na si nekk mais xam nga dafa am loo xam ne dañ si xam nga ñun ñëpp dañ si war a xippi suñu bopp gis gis nga sénégalais lenn la war a tàmm déggoon naa fi sax ñu naan way mm, sénégalais day wax lu ko dañuy débat toujours si ay détails xam nga la moom solo mooy tey li jo ñëwagul ñëwagul mais député ngay fal falal député mais bu doon loolu la rek kon ñu def benn élection rek mu jeex. mais yow da bëgg di fal député di sóoraale ne wey kii day nekk président de la république su ma falee député bi kii laa fal non c'est pas sérieux il faut quand même ñu wóolunte. d'accord ñu woolunte ba pare lu jot ñu def ko. d'accord ma na ne jili encore une fois jili bu dee yow da nga coupe d'Afrique bi ñu indi ba nga foog ne mënuñu si am dara da ngay nax sa bopp. d'accord yow euh, yow yow coupe d'Afrique ma ne ba ma ne ko déedéet politiser wuñ ko moo politiquer ci boppam. Ah, d'accord politique weesuwul xaaral ma la politique weesuwul nga liggéey ba sa askan yëpp kontaan. damay ragal cohabitation assemblée de. mais tant mieux su dee am na bu dee nit ñi ko décidé mais xaar ma wax la benn affaire lenn moom am na 2012 ba léegi moom. on a la majorité. d' accord léegi jërëjëf euh, To Sané euh, euh, ñu gën laa xam si To Sané Alioune Sané yow yaa jiite yaa jiite fédération démocratique des écologistes de Dakar ñoo ngi lay sant di la gërëm. oui maa lay sant di la gërëm Djidou Ba bu dee tamit sama wax yi am na si yoo xam ne peut être tegginuwul maa ngi jégalu mais yaakaar yaakaaruma ne def naa si erreur mais may renouveler rek ne nous sommes fiers du travail que nous avons fait surtout au niveau de Benno dans le national sur recommandation de parti di invité suñu secrétaire général Aïdar. maa ngi koy ñaanal wér mais di ko invité tamit à redoubler d'effort comme ni ma wax ne man sama xalaat moom moo war a góorgóorlu di encourager président la république di ko remercier si liggéey bu rafet bi ñu def di félicité waat encore Lions yi xam ne rek Sénégal a gagné mais loolu nag dafa nekkoon loo xam ne mission Sénégal la woon te mission accompli nañ ko donc ñuy sant yàlla di gërëm di la gërëm tamit di gërëm réew mi FM ñëpp jërëjëf euh, Alioune Sané mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi euh, Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kàddu gi moom du Diawa Diallo ci wàllu machine bi ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw euh, bu 15h jotee jàpp 16